<clears throat> dajjaal dana ñëw waaye bu ñëwee dëkk bu ne dana ca dugg lu mooy madina yàlla xaraamal na ko mu dugg madina waaye dana ñëw ba ca tan yi nga xam ne ñoo war madina suufi xorom yooyu bu ne bu boobaay benn waaye boo xam ne moo gën a xiw wala ci ñi gën a xiw ci ñooñ jamonoom la bokk mooy génn medina ñëw gàttandu ko ne ko sedd naa ne yaay dajjaal mi nga xam ne ñu yonent waxoon nañu mbiram mu ne nit ñi waaw su ma reyee kii dekkal ko lu ngeen di wax bon da ngeen gëm sama mbir wala déet ñu ne ko boo ko defee ñu gëm la mu rey ko dekkal ko waaye ne ko maa ngi maa ngi ko xam nag tigi tigi tigi tigi tigi léegi nag wóor na ma ne yaay dajjaal mu dellu fabaat gànnaay bu ko rey nag boobu yoon nag malaaka yi dox diggante moom mën a lu ko dara mu bàyyi ko noonu la dajaal di wàññeekoo du dugg Madina dugg Madina yàlla dana xewar ay malaayka ñu wër ko ba lu yàgg-yàgg duñ mën a dugg ci dëkk ba mu ne naka noonu mbas itam incha allah du dugg Madina